benn plongeur la ñu fekk mu daal di lab fu li nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Gorée maanaam benn nuurukat la ñu fa fekk mu daal di nag ñàkk bakkanam mu nekk nag ab nuurukat bu doon wuyoo ci turu Youssou Gueye Fall dëkk fële ci diwaanu Thiaroye sur fekk nañu ko nag mu làpp niki démb fële ci diwaanu Gorée bile tiis nag tax na ba askan bu caaray sur ànd ak jaaxle li nga xamante ne moo tax kii di Youssou Gueye Fall daal di génn àdduna suñuy nattangoo daal dinañ koy xamale ndaxte bile nuurukat dafa panoon ci wàllum gaz loolee tax ba mu daal di rek ñàkk bakkanam